que ces législatives là ça représente quelque chose loolu lañ la bëgg a commencer laaj lan la représenter élection législative yi pour koo xam ni benn moment sax demoon nañu ba turu député du peuple ah toppoon na la ñuy xalaat ni donc bi enjeu de taille la élection législative yi. waaw élection législative enjeu de taille la comme ni nga ko waxee. Mm-hmm. parce que élection législative peuple bi moo ko moom. xam nga ñoo xamante ne ne ñoom la ñuy bind seen tour ne ñooñu ñooy dem assemblée nationale. ñooñu dañ leen fay yabal ñu tuddee leen les représentants du peuple donc élection la boo xam ne peuple bi moo ko moom euh, mu doon nag élection bi nga xamante ne ne ñu ngi si war a fal dafa am rôle bu am solo bu ñu war a liggéeyal askan bi rôle boobu dafa wute ak rôle bi nga xam ne moom la ñuy faral di gis muy rôle bu président de la république di incarné. Mm-hmm. sooy xool Sénégal daanaka dañuy jàpp sax ne assemblée nationale amul. ndax euh, président de la république ngay gis fépp si lépp ba pare ñuy ànd ak moom si biir assemblée nationale lu mu leen sant la ñuy def lu mu bëgg ñu def loolu la ñuy def ba nga xam ne sax am na sénégalais yoo xam ne dañ leen naan est-ce que jar na sax ñuy teg assemblée nationale si jar na ko jar na ko waaye li war a mën a tax ñu mën koo teg ba ñëpp am si satisfaction mooy ñu fal fa ay nit yoo xamante ne suñ fa nekkee xam nañ luy rôle assemblée nationale xam nañ lan mooy seen rôle ñoom xam nañ aussi li leen war par rapport ak askan bi moo tax jàpp nañ ne élection bu am am solo la pour population sénégalaise yi sa nous permettrait juste ñu def un peu de rythme xam ni foofu la ñu jëm parce qu'on va parler beaucoup d'élections législatives mais am na élément bi